safar teru na xolu Baay Faal boo làmb bale ju Tuubaa rek mu yitteem te sëñ Bamba waxoon na ni sama dëkk bi ku seetal lu toll mètre ñu daggal lay cité aljana ndax xam ngeen ñaata kër la ñu am aljana ñi te Serafal waxoon na ni juróom yi gaaw na loolu ci may ngërëmal yàlla muy bale te muy buub taxañ root yeesal ak màjjal kon waa tuuba taqal leen taqal leen lu ngeen mën ndax lu waay taqal Serafal dana ko seetal